après ay naafeq mhm. sincèrement mhm. Ousmane Sonko ba ñu koy jàpp di ko toroxal ana Aliou fan la nekkoon ak Pierre Goudiaby fan la newoon ana woon maram maram Faye Sall ah jàpp ci Ousmane Sonko jàpp ci Ousmane Sonko ay fen loo xam ne tegul fen ku la xam ne Ousmane Sonko lu ko jàpp di woon kon kay lu ñu wax kon kay lu ñu wax ne la Macky Sall mooy justifié loolu bu Macky Sall ne mooy kii Ousmane Sonko kay Macky Sall la justice Sénégal ne pas indépendante xam nga ñu ne ñoo te Sénégalais ay dof quoi dañu wax dara di continuer ba ci biir ñoom wax ñu ne la justice indépendante wala bu ñu demee Macky Sall mooy génn Ousmane Sonko kay notre justice pas indépendante. ah mooy kuy def di gën di def lu ko neex problème Macky Sénégal Sénégal problème problème du pays c'est Macky Sall na jël élection yi droit di ko reporté mais loolu mooy problème Sénégal tey koo xam ne Macky Sall mooy le problème le Sénégal aujourd'hui c'est le président Macky Sall pour nous amettre qu'il cesse de nous amettre le seul problème du Sénégal aujourd'hui c'est le yoon ah loolu mooy yoon ku waxul loolu Macky Sall waxu ko dara. Mhm. ah man bu ma ko Ousmane Sonko il va il va jamais négocier euh, euh, Sénégal Ousmane Sonko moomu ko Ousmane Sonko mën na dem son programme Ousmane du xalaat soxla loolu xam nga gars yi dañuy wax rek quoi mais le problème du Sénégal tey gars yi bu ñu bëggee wax dëgg dañuy wax Macky Sall na ko yaa ngi ci dëgg Macky Sall il pour des pour voilà c' un président corrompu incompétent voilà mais nag ñoom def ñoom ils vont ils vont répondre hein ils vont ndax luñ ko dañoo jàpp réew mi dañoo jàpp Sénégal yàq ko Macky Sall bu ñu ñëwee ba léegi ba mu nekk la Sénégal ba léegi lu ko neex def ci réew lu ko neex rek def Macky Sall bu boo gisee Macky Sall bëgg a négocier rek fekk il a le dos au mur Macky Sall dafa toppatoo kenn Macky Sall faalu kenn ba foofu la faale ak njabootam ak ay jom la faale faalu kenn Ousmane Sonko daal fu mu ne woon dafa nekk rek am na na ko jàppoon ci ay fen lu dëgg ah léegi nag ça ça arrive une patate chaude dans leur main c'est tout mm-hmm. c'est tout mais Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko n'est pas un dealer Ousmane Sonko c'est un homme intègre il va jamais euh, il va jamais dealer avec Macky Sall voilà mhm. lii lii a wax moo man a bu ñu wax Macky Sall c'est un fait Macky Sall pas un génie politique xam boo yoree nguur yor am yof ko tu nga def lu la neex mais on même même am jaar après def c'est pas que tu es un pas un mais def muy neex def muy neex mais Ousmane Sonko da koo Mhm. Allez, ah, Macky Sall naka s'apprend à lui-même naka s'apprend à lui-même Ousmane Sonko n'est même pas n'est même pas prêt pour négocier avec président Macky Sall du ko def Ousmane Sonko du waa du waa jëm Ousmane Sonko bu doon négocier kon kaso Ousmane Sonko lu ko yóbbu kaso a kaso dem kaso mhm. voilà yàqal fu mu Ousmane Sonko reste reste lui sa position il ne change pas jaajëf waaw Ousmane Sonko tey bu ma liggéey gars yi naan Sénégal dafa ja merci beaucoup mais par exemple da ngay hmm. ah, faral ngay ah, a palaas. dëgg la ba Macky Sall moom Sénégal ah ma màggatu loolu yoru ci loolu bu dina Sénégal tey démocratie moo tax mu ñëw ci boor waaye nga nekk Sénégal la yi kii ah, ah pourquoi la Sénégal yi pour di wax dëgg Macky Sall na ko na par merci beaucoup merci beaucoup Thierno ñu lay euh, jaajëfal bu baax a baax yéen itamit euh, mën ngeen di def ni moom aussi ci 88 628 73 13 wala ci 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 64 93 Moussa Lamy maa ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax man tamit namoon naa la bu baax a baax Moussa Lamy euh, donc euh, continuer leen s'il vous ngeen aimé partager live bi su ko defee rek euh, waxtaan bi daal di gën a mën a yaatu comme ni ma ko waxee sànq l'architecte bi le di Pierre Goudiaby Atepa ak Alioune Tine nee jamono ji ñooy dox tànki jàmm tànki waxtaan ngir président Macky Sall ak ki nga xamante ni rek mooy Ousmane Sonko lu dégg Pastef bi mën a daal di waxtaan gis nañu sax moom Pierre Goudiaby Atepa kàddu yam ci yëkkati nee na daal ñaari boor yëpp waxtaan na ak ñoom ku ca nekk daal mën nga koy daal di déglu donc jamono ji ñu toll nii nag yenn ci yërekaay yi xëyee di xam ne ni daal. proposition yi nga xamante ni moom la président Macky Sall ak jabaram euh, Marème Faye a tegal Ousmane Sonko mooy que ni rek nañu daal di dàq maanaam élection yi nañu ko nañu bàyyi président Macky Sall toog ci réew mi fekk Euh, ñu daal di koy génne ndax loole Ousmane Sonko dina ko nangu ndax loolee sax ñuy wax dëgg la en tout cas nu ñu ci mënti doon boobaak léegi euh, gisaguñu képp kenn koo xamante ni dafa daal di bokk ci Pastef bu génn àddu ci li ni donc balaa ñuy euh, wéral xibaar yi faaw rek ñu xool ba xam fii ay fan wala fii ay waxtu yu néew dinañ gis benn membre responsable politique bu Pastef génn àddu ci li nga xamante ni rek moom la ñuy biral defe naa niki ki démb ak tey gisoon nañu El Malick Ndiaye ci mbirum dialogue bi yoo xam ne ni daal ñoom dialogué wuñu waxtaanuñu ak président Macky Sall waaye teewul niki dem ba tey daal ñu ngi biral ay xibaar comme quoi ni président euh, Macky ak Ousmane Sonko ñoom ñi ngi daal di waxtaan donc yéen ban njàngat ngeen am ci loolu donc woote leen ci 88 628 73 13 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 64 93 bu fekkee am na ko ne ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum mbokk maa ngi fa alhamdulilah yow nag yaa ngi ci jàmm. waaw maam Diarra Bousso. Mhm. naka si waa si yéen a ci jàmm. alhamdulilah ñu ngi ci jàmm bu baax a baax. alhamdulilah waaw man de li may wax rekk suñu mbokk waa Pastef yi. Mhm. man daal li ma leen di wax mooy nañu dal nañu dal nañu dal tuuti nañu dal tuuti daal laa leen di wax. Mhm. xam naa nag euh, magum jëm moom boo ko nee nañu dal du da nga daan kii def maa yàpp.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 baa ñëpp nga si jàmm maam Dia xam nga lan laay wax. comme que nangu mhm. nañ ñun kenn manifester Dakar léegi dañ ko interdit. mu ne. ma nekk dañoo interdit manifestation yi Dakar. waaye préfet daal dina koy interdire. waaw léegi comme que préfet interdit na ko fi Sénégal mës a gagné élection fi mu Sénégal mës a gagné eh, xam nga fan la depuis Senghor ba léegi. Mhm. Thiès lañ ko gagné. on a gagné toutes les grandes manifestations yu Sénégal gagné yëpp Sénégal libération Sénégal am bi mu koy bi mu jël indépendance am yëpp Thiès la déparé. comme mm-hmm. que ñun nag Thiès mooy su mooy mooy njiglaayu Sénégal damay laajte Sénégal gépp nañ daje Thiès def focus ci Thiès dajoo daj Abdou Diouf bi ñu koy bi ñuy gagné Senghor Lamine Gueye ba mu koy gagné bi muy gagné bi Senghor da gagné Lamine Gueye Thiès la ko gagné ak ak ak ñoom Demba Diop Abdou Diouf muy tey bi ko ab Ablaye Wade di gañee Thiès la ko déparé kon Macky Sall tey bi ñu ko bëggee gañee nañ delluwaat ñun ñëpp Thiès ñu def suñu mobilisation pacifique à Thiès rassemblé wu Thiès bàyyi leen ak Ndakaaru Ndiaye. gañee gañee gañee gañee la ñu bëgg ci Sénégal te Thiès donc moo ñu koy may. parce que hmm. Thiès mooy xolu Sénégal. Thiès mooy xolu Sénégal nañ delluwaat Thiès ñun ñëpp nag defa mobilisation pacifique à Thiès ñu gañe Sénégal delluwaat Sénégal ci Sénégal ci buumu njaam yi mu nekk ñu dagg ko. loolu dong laa amula ma doon jàllale di la bu baax a baax a baax a baax kon focus gars yi ci Thiès ñun ñëpp incha allahu rabbi nañ fexee dox loolu wax ko def ko à Thiès. jaajëf yow xanaa nitu Cees nga. <laughs> du ma Cees waa de. ah d' man man man Mbour laa dëkk du ma mais dama xam ne Cees moom mës a gagné. moom ah, mës a a gagné toutes les toutes les rassemblements pacifiques Cees moo ko mës a gagné ci Sénégal. am na solo moo ko mës a gagné nag. Mhm, mhm. depuis les années soixante ba léegi Cees moom mës a gagné les les rassemblements pacifiques. kon nañ delluwaat Thiès ñun ñëpp ñu gagné Sénégal delluwaat Sénégal ci bu mu jëm comme kon Dakar Ndiaye kenn bëgg nañ delluwaat Thiès ci Assama Pacifique Thiès la mos a amee ndam. te fa la ko mos a delloo. nañ ko ko fa ndam incha allah. jaajëf merci loolu donc mooy mooy mooy dama bëgg message bi mu jàll ci Sénégal yëpp. gars wax dina xam ne li mu wax ni dëgg la kenn du ko dindi. jaajëf merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, mbokk mi euh, voilà euh, loolay waroon na mbokk sax suñu ponk manifestation yi nga xamante ni ñenn ci kujje politique bi wala ñenn ci askan bi sax laay wax jàppoon nañu ko ne dinañ ko amal ndiki tey jile waaye préfet daat na koy interdit donc jamono ju ñu toll nii nag la ñuy xalaat rek ndax baa du mel comme ajjuma bi ndax ku ne xam na nii boobu lay manifestation yi tamit autorisé wu ñu ko woon waaye gis nañ mu mujjee donc en tout cas ba fi ngi na tekk ndaw ñi mi ngi na tekk waaye fii ba ngoon mu ne mën naa xew donc ñi ngi sàkku rek euh, lépp luy euh, xew rek yàlla nañu yàlla aaral suñuy ndaw 88 628 73 08 99 25 24 02 77 914 64 93 su ko ngeen daal mën a euh, dugg wax seen xalaat ci li ñuy waxtaanee bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. taala wa barakaatu maami sëriñ ba maa ngi lay ziar sama sët bi yaa ngi ci jàmm jaara bu sa maami ñëpp nga yow yaay maami ñëpp yaa ñu ngi ci jàmm kay alhamdulilah ndaka waa Gàmbi ñëpp a ngi ci jàmm waaw ñu ngi sant bu baax a baax a baax démb maa ngi lay seetaan ak sëñ Moustapha Mbaye mm-hmm. waaye nekk yow nii nga déggee olof noonu gis nga de xam naa damay ñëw rek nga jàngal ma olof <laughs> non dama bañ may jàngal wolof ñu naan wolof damay mujjee ñëw gambien bi jàngal sénégalaise bi wolof rek. ndeysaan. waaye jërëjëf maam Bousso Bali ñu ngi ziar ana Mohamed El Mansour. mu ngi fii mi ngi ci jàmm ñibbisi na ci jàmm ak salaam. ah mu nga nayul ma ko nayul ma Seydina Aliyun karamallahu wajha moom it ku daal ku téye ndeysaan. incha allah ñoom ñëpp dinañ ko dégg. nee na tey luy bopp xibaar yi dëgg dëgg dëgg. Mm-hmm. tey li ñuy waxtaanee bokk na ci xibaar yi nga xamante ni uh, suñu naataangoo yi ñu ngi koy biiral defe naa depuis uh, démb ci guddi ba tey ñu ngi koy xamle tey journaux yu bëri xëy uh, fësal ko ni président Macky Sall daal. ak euh, euh, Ousmane Sonko jamono ju ñu toll nii ay nit ña nga cay dox tànki euh, jàmm jamono ju ñu toll nii sax suñu sukkandikoo ci xibaar ñi ñi xamal ne Pierre Goudiaby Atepa ak Alioune Tine ñoo nekk ci bopp loolee dem nañu bay xam ne ni daal lañu ko daal di jot proposé Ousmane Sonko mooy ne rek nañu ko génne ci kaso bi moom ak ay ñoñom waaye bu boobaa président Macky Sall day toogaat ci bopp réew mi cinq ndax loolee. Euh, euh, ay xibaar yu wér la en tout cas ak lu mu ci ti doon su suñu yéen naataango yi euh, biral nañu ko waaye boobaak léegi gistuñu benn yoon ñi di waa Pastef def ab communiqué wala conférence de presse ngir démentir wala addu ci li nga xamante ni boobaak léegi ñu ngi koy daal di dégg beneen ponk bi bokk na ci ñaar yi nga xamante ni rek ñooy président ya woon muy Abdoulaye wadd ak ki nga xamante ni mooy Abdou Diouf bi ñu bataaxal ngir rek sàkku ci réew mi jàmm waaye sàkku ci président Macky Sall mu amal yi nga xamante maire lay doon élection yi nga xamante ni dañ ko jàpp ci na mu daal di gën a sàkku tamit ci ñu faxee ci ku jë politique bi ñu daal di rek euh, waxtaane réew mi ndax jàpp nañu daal réew mi moo mag ñëpp donc nañu ko daal di waxtaane jàpp nañu loole muy li gën ban jàngan nga ci am alhamdulilah. Mhm. xam naa yow soo fàttale ko di laaj naa la fii ci benn benn euh, am na bis mën a la waaw suñ mhm. ñaari njiit yu yàgg ya defe naa yaa ma ko wax de nga ne ma ñu fi de ma la mhm. waa ana maam maam Abdou Diouf ana maam Abdoulaye Wade xanaa lii di dox yëguñ ko man defe naa defe naa bu dul benn yoon di ñaar yoon laajte naa ko ci sa plateforme bii. dëgg la. waaw waaye nag euh, ba tey rek euh, ndeysaan dafa am loo xam ne mag dañu wax ne magam waxoon naa ko. moo gën mhm. fuuf magam foogoon naa ko. boo gisee ñi daan laajte naan fuñ ne mooy kenn warut tabax lu toll ni réew. dem ba réew ma am nu muy doxee nga gis ko bokk ca ña war a defar noppee noppee noppi ba jamono mu mel ni de man sama jàngat bi rek mooy système bi rek euh, ba tey rek moo ñu topp maanaam système nag bu ñu ko waxee du nit ña doxe ni doxi ni doxalin bii dox ci système bi moo tax ñu naan système bi mm-hmm. ñoom ñoom ñu ci système rek lañ waaw ñoom bu buñ sañoon li ma leen daan wax rek démb ko iñaanee sa ndono seen indi na ñaaw ak ku mën a moo xam ci fànn bu mën a doon rek gis nga dëgg genn rek la mën a tudd loolu ni ñuy ruumandaan nag naan eh, ñi ngi wax la le ma ne Macky Sall moomul réew mi ah, eh, Ousmane songo moomul nit ñi moomul réew mi mhm. lii dëgg xam nga ne ku ku dëgg-dëgg xam ne nopp buy dëgg-dëgg da nga xam ne lii ku ku ko wax ne Ousmane ak kii ñu ngay ci eh, mën nañu wax ne Père Ataba Goudiaby ak Tine ñu nga ci di dox jàmm loolu ñun ñëpp ñu ngi dox ñun ñi ñi ñun ñii di wax yëpp dox jàmm lañ ndax li ñuy wax yëpp jàmm lañ bëgg mu am waaye jàmm ji tawut ci dëgg xam nañ ne ñun ñu ko bañ ñëpp Ousmane moo ñu ko gën a bañ ah kenn mënta nangu naan Ousmane dañ koy génnee ba pare ma ki toogaat fa juróomi at fu ñu ko teg loolu ku ku koy wax ci dëgg loolu nit ko nit ku ñeme dëgg war naa te gis nga dafa am tappalekat yoo xam ne ba léegi ci tappale gis nga ñi toggoon tappale yu njëkk ya ci ñetti at yi di fen di wax lu du dëgg di sos ba léegi ñoo duggaat ci lii di sos di wax lu du dëgg nit ñi nay ragal yàlla te xam ne yàlla képp ku du dee amut yàlla bindul ku du dee. nañuy ñeme wax dëgg te bàyyi fen yeeg sos yi maa ngi am sax ñu may alerté ci loo xam ne mooy ñi nga xam ne dañ ne ci bugaan lañ bokk am na ñu dugg ci biir di bëgg a dóorante ñoom ñi bokk ci bugaan ak ñi bokk ci euh, Seydina Ousmane suñ tey rek defu ndànk dinañ leen fekk nga fekkale mooy gis nga ma wax la daal gis nga yàqkat du tayal mukk fu mu tàmbali na fii dina fa yàq bu sottil mu dugg feneen. Mm-hmm. am na ñuy dugg naan maay nangam yi bugaan maay nangam maay ñii ñoo la fi woote woon nangam waxuñ dëgg. képp koo dégg muy wax di jaxase fii ñu toll fi senegal toll képp kuy jaxase jaxasekat mooy ñu yàqoon te te lañ doon yàq yëpp yàqu ñu bëgg a dugaat feneen di yàq. moo nit ñi nañ am xel. am na solo nañ am xel. waaw non nañ am xel nañ mm-hmm. yeewu. gis nga mm-hmm. fii àdduna la tudd gis nga yàqkat du tayal bu yàqee fii yàq yàq yàq ba sonn sottiwut mu ubbiwaat beneen bunt. nit ñi nañ am xel te eewu te xam ne ñu baaxut ñi ñi nga xam ne bu donte Sénégal la seen maam lañ juddoo seen maam yi juddoo fa ña am ak tur ñu mën a tudd ak dëkk buñ mën a dëkk ak fuñ mën a gox bu ñu mën a ne buñ baaxut baaxuñ ku bon ku bon rek la tudd yeneen yonent bi am na Abu Jahlin Sénégal kon bu amee ñenn ñu bon ba benn benn bi ci des ci social media bi di wax lu du dëgg ak maqaama buñ mën a sollam bu muñ mën a woote ne nañ tudd buñ waxul dëgg waxuñ dëgg. merci beaucoup dëgg rek muy dem. waaw lu du dëgg du dëgg. dañ ànd ci dëgg ak njub te bàyyi kàcc yeeg sos yi ak fenn yi ak yàq jikko yi. jaajëf Mouhamadou Bassirou Gambie jaajëf salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax baax nga nuyu ñu waa Gambie yaa yëpp 88 euh, euh, donc continuez leen s'il vous ngeen aimé partage live bi su ko defee rek waxtaan bi gën Fatou Thiam ah, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax Ramatoulaye Sané sama xarit j'espère que yaa ngi ci biir ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax donc ñu bamtuwaatal leen li ñuy waxtaane tey jilee ah, bokk na ci li ah, journaux yu bëri xëy fësal tey jilee te loolee ñu tey tudd Pierre Atepa Goudiaby ak Alioune Tine jamono ji daal ñoo nekk ca bopp tànk dox jàmm ci diggante président Macky Sall ak Abdoul ak Ousmane Sonko def nañ ci ay révélation yu bare bari daan ci bi jamono ji dinañu ab bataaxal ngir Sénégal am jàmm ngir ñu daal di koy tamit euh, waxtaanee bu fekkee am na ku ne ci ligne bi ñu daal di koy jël salaamaaleykum mbokk mi. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Mhm, ñu ngi lay ziar mbokk mi di la jaajëfal bu baax baax tur beeg fooy wootee. waa soxna Diarra maa ngi lay ziar depuis depuis l' Espagne maa ngi woote depuis Espagne euh, di participer par rapport ak euh, ñaari thèmes jaajëf merci beaucoup xam naa Sénégal Sénégal dafa xew bëri na kenn mënul wax yëpp. dëgg la mais bon on va de résumer de wax ci l'essentiel. mooy euh, Sonko naa leen wax benn affaire moom xam nga démentir nañu xam nga démentir ñu. Mhm. mais leer na ma ni si ñi ànd ak Sonko ñi sës si Sonko Sonko si boppam ñoom sax yabuñu ko bay ñëw di wax Sonko ak Macky ak Macky Sall dañuy waxtaan. Mhm. mais Sonko amul benn intérêt pour waxtaan. déedéet moom depuis que euh, amul sax intérêt pour génn. Mhm. Sonko depuis prison. moom mooy diriger la politique sénégalaise et même africaine et moom donc soxlawul benn génn kooku ne vous inquiétez même pas ay affaire toppale la li waa ji waxoon du dañ ay affaire toppale la ay maguy ak dévier dévier pression bi am ci euh, Macky Sall ñu jéem ko dévier par d' autres sorties de Jules Diop sortie de l' autre sortie tout ça pour dévier pour que gars yi fàtte tuuti la Wade euh, Macky Sall mais Macky Sall est actuellement cerné xamatul fu mu jëm donc il faut pas que ñu bàyyi la pression dans la rue et la pression politique il faut que gars yi continuer il est carrément cerné amul fu mën a dem continent bi yëpp kenn farul ak Macky Sall donc il faut que population di continuer de façon pacifique ñu daaneel Macky Sall di euh, une bonne fois pour toutes il est complètement cerné même Maroc bi ñuy wax wala war a dëkki ils sont pas avec lui muy boobu moom c'est important nanu bàyyi Sonko fa mu ne ma doon moom moom ak Diomaye Faye yëpp du ma génn balaa may génn pour dem dem def de service la À mhm. partir de, de, la prison, ils dirigent le pays. À parti de la prison, ils dirigent le pays. Ils n'ont pas besoin de sortir. donc beneen bi ci topp moom mooy affaire ñaari président yooyu noonu. Mhm. je veux même pas les nommer je veux même pas les nommer. Mhm. tout le monde sait que euh, euh, Abdou Diouf moi j'ai vu j'ai vécu avec Abdou Diouf c'est Sénégal tardé moom ci moom ci ñi bokk ci la la il n'a pas travaillé le pays il a été longtemps avec Senghor ne ba jël boppam moom rek. il n'a rien fait pour le pays lépp lenn loo xam ne dafay avancer le Sénégal rek sur le plan structurel il ne l'a pas fait la fa Senghor ne woon moo fa ne wax ma rek Abdou Diouf lii la fi def sur le plan structurel il n'a pas changé le pays grâce à lui on a on est on a eu minimum vingt ans de retard c'est un paresseux les gens disaient même bi ñu nee foofu noonu on était à l'université et on disait que moom euh, gars yi dañ à partir de vingt heures rek gars yi dañuy dañuy ak moom Euh, mandiloo ko après moom daal di def lu neex ci dëkk bi c'est ça que disaient les autres. Hmm. donc maintenant pour revenir à Ablaye Wade Ablaye Wade personnellement il n'est pas fiable Ablaye te aujourd'hui tout ce que Macky est en train de faire Ablaye Wade moo ko commencé des ministres médiocres des députés médiocres gaspillage fond ree ku dugg palais vous vous rappelez ku dugg palais da ngay génneeg cinquante millions ku am ak ku mën a doon waykat làmbak ku dugg ba Ablaye Wade génn cinquante millions moo ko commencé ngay mu def la ministre et cetera maintenant euh, pour revenir ak ñoom seen lettre bi c'est juste pour maintenir le système c'est pour se protéger et Ablaye Wade tamit doomam parti amul parti politique affaire famille la yor moom dem na pourquoi Karim Wade war a ne nga waa PDS yi pourquoi ñuy nangu Karim Wade war di leen jiite koo xam ne déggoo wolof doo ñëw Sénégal xamoo dara xew réew mi nga nangu di leen jiite parce que y a des intérêts financement politique yi jógee foofu te comme ñoom les politiques dundee jeex na Wade euh, moo la gën a xam ni que un pour cent tey suñ ko defoon élection doom ji du ko am Karim Wade mhm. mënul am un pour cent mhm. maintenant c' est euh, c' est l'orgueil bu leen fàtte Ablaye Wade bi mu see président demande ba ndar ngéntewaat boppam pour wane que ni moom si famille famille am si famille royale la bokkoon ñu ñu am de euh, yax la bokk donc c' en un e et ces deux la président la mérité wuñu sax ñu leen di continuer di fay wala ñu leen continuer di assister je parce que il s'est passé énormément de choses maam Diarra. Mhm. depuis que ñuy wax ak léegi nii depuis deux mille vingt et un léegi. y' a énormément de morts y' a beaucoup de choses ils n'ont jamais parlé. maintenant mhm. euh, Wade il a vu que le son fils là euh, mi ngi am tur et cetera monde bi yëpp ñaan day bokk et cetera mais day bokk boo xam ne amoo un pour cent les gens peuvent le dire l'ancien président Wade doon ci dañ ko euh, recalé et cetera et cetera. d' accord d' accord. jaajëf ah il veut même pas venir. Mhm, Mm-hmm. c'était ça lool loolu daal ñaar yooyu laa lu may wax. Euh, bon euh, maa ngi jégalu et puis leen ñaanal ñëpp Sénégal di leen wax ñu dem continuer deewoo. ñi mm-hmm. mën a ne ci mbedd mi nañ ci ne ñi mën a bind nañ ko def ñi mën a def porte à porte wax ak la population ils n'ont qu'à le faire euh, amnistie ce n'est pas la peine li am mooy na ñu maintenir les élections le vingt cinq qui est maintenant président bi ñëw il fait l'état des lieux ñu mën a def réorganiser le pays réellement après on avance te amnistie c'est une grosse erreur parce que soo amnistie rek boo baalee rek déjà euh, plainte yi ñu defoon CPI yi mhm. ak yooyu yëpp ak kenn enquête yi fooroon am yëpp dañ koy daal di fàtte te yooyu yëpp day daal di dem te alors que les gens là il faut qu'ils payent on a vu des commissaires ici cinq commissaires jeunes ñu tirer sur des gens ñu def conférence de presse ni loolu yëpp amul et ces gens là ils doivent payer la gendarmerie doit payer la mhm. police doit payer kenn gën leen kenn gën leen bon je te l'ai dit euh, mille fois ici que ñoo gën a bon ci Sénégal jaajëf merci beaucoup ñoo gën a bon ci Sénégal. merci beaucoup voilà maa ngi jégalu. ñu ngi lay jaajëfal bu baax dégg nga ñun ñoo ñun ñoo leen may ndox danoo mar ñu may leen ndox ñu naan ba mandi sànni nu gaz lacrymogène <laughs> même pas cinq minutes les mêmes personnes yi nga may ndox ñu naan ba pare c'est la police c'est la gendarmerie. il faut que les conneries. sont tous des hommes maa ngi jégalu. merci beaucoup leen yaa ñu ñëpp ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax mbokk mi 88 628 73 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 64 93 donc s'il vous plaît mën ngeen aimer partage la euh, partage su ko defee rek euh, ñi ci mën a jot seen notification ñëw ànd ak li nga xamante ni rek mooy waxtaan bi li ñuy waxtaanee tey bokk na ci communiqué bi nga xamante ni ñaari président président ya woon euh, muy Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf def nañu ko ngir woote jàmm waaye tamit ñi nga xamante ni ñoo sekk euh, géewu politique bi ñoom i tamit ñu daal waxtaan euh, waxtaane réew mi ndax jàpp ne daal réew mi fi mu toll waxtaan rek moo ko moo mooy mooy tax ñu génn ci situation bi nga xamante ni moom lañu ñu daal di nekk ni ki tey manifestation pacifique la ndaw ñi woote woon préfet bu Dakar daal dina koy aaye ca naka noonee en tout cas ak lu mu ci mën ci doon ñu ngi sàkko rek lépp mu lu mën a xew ndax gis nañ bu ko woon gis nañ lañ fa la fa am ba ay moor am fa donc ñu ngi sàkku alek lu mënta xew rek yàlla nañu yàlla sàmmal suñu ay ndaw ba benn bakkan bañ ci daal di rotaat 88 628 73 13 08 99 25 24 02 bala ci 77 914 64 93 bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam wa rahmatulah waa Diarra d' waaw waaw dafa daggoon waaw xam naa Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade moom. Mm-hmm. seen loolu ñu bind noonu moom. loolu Macky moo leen soli moo leen moo leen ko sant moo leen moo leen solicité pour ñu bind ko. Mm-hmm. bon xam naa nag bon euh, xam naa loolu mën nañ koo dugal ci xaj na jaaxle quoi. Mm-hmm. waaw du ne sës sës na ci miir bi mais man li may wax mooy. li may wax euh, mbokk Pastef yi mooy nañu nañu xaw a dal tuuti nañu xaw a dal tuuti parce que état dafa xaw a complexe te waa ji comme dafa ne ci ay manœuvre comme dafa ne ci ay manœuvre nañu tey ci ay pexeem ak i ay pexeem ak te déglu te déglu Ousmane Sonko nañu ñi ci bi waaw ñi ci biti daal nañu dal tuuti te déglu Ousmane Sonko. Mm-hmm. waaw parce que waa ji dafa jaaxa dafa jaaxle te jaaxle nit bu jaaxlee moom man boo boo ko continuer teg pression bu dans la rek. jàpp naa ne man naa tax mu lu situation bi dégénéré daal dégénéré ba tax na mm-hmm. Mm-hmm. waaw mm-hmm. am na ci loo xam ne daal am na ci loo xam ne daal militant bi da koy def déglu bu ko defee déglu déglu ka ndeyu mbill ja ca kaw waaw loolu daal lu am solo la daal ñu xaw a dal tuuti daal foofu daal laa doon interview bëggoon a duggoon pour wax ko daal mais Abdoulaye Wade ak lu Diouf moom ñoom moom du ñu nit dara ñooñu Macky Sall moo leen sant loolu pour ñu def ko ndax ak dafa jaaxle fi mu ne mais jaaxle googu nag fu ne nañu nañ dégg nañ ko bàyyeeg Ousmane sonk rek moom ni tekk di ko dégg loolu daal laa laa gis ni mooy solution ku ni tekk tekk dina la wan yoon mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. waaw am na solo am na solo ñu ngi lay jaajëfal merci beaucoup ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax lu jëm